wasalaamun ala ibaadihi allazina stafaa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul xuqdatan min lisaani yafqahu xawli mbokk jullit yi nga xam ne yéen ñu baaxoo topp saa ne ci émission bu am solo bi nga xam ne moom la ñu indi weer wu nekk di la vingt ba ca lañ ciy ànd ak ab borom xam-xam boo xam ne day indi ab tomb bu jëm ci njàngalem diine ñu jàngat ko ngir murit yi mën cee ballu rawatina nag jullit yëpp émission boobu yi nga xam ne moom lañ tuddee almanbaul murit yi di ballukaayu murit yi nga xam ne weer wu nekk lay am dañ ciy ànd ak euh, euh, télé jumaay Touba ji di GMT TV ak Lamp Fall di ko def saa su weer wi jotee te ji amaan nañ mbégte mu yaa indil leen émission boobu yi nga xam ne war nañ cee ànd ak boroom xam-xam bu mag muy Oustaz Makhtar Seck di boroom xam-xam di gëstukat bu mag a mag bokk ci ñi nga xam ne dañuy dundal xam-xam ci dëkk bii di Touba di directeur école franco arabe bu Cheikh Mamadou Bachir nga xam ne mi ngi ciy def liggéey bu am solo di yëngu ci jàngale ak ci yare rawatina nag ci lu jëm ci wàllum xam lay rawatina lu jëm ci wàllum tas xibaar wala communication ak lu ci aju te jii moom la Al-Manbahoul Mouridi di wara dalal tey di émission boobu nga xam ne weer wu jot danañ koy indil incha allah. ñu war cee am mbégte nag da ci waxtaan waxtaan wu am solo woo xam ne wu dëppoo ak jamono la wu dëppoo ak fi jamono toll la muy réseaux sociaux yi nga xam ne euh, buñ ko waxee xëy na si oustaz dana ci ñëw suñ moxtaar dana ci ñëw xamle ko mooy lan ak yu ni demee waaye dana waxaat tamit ci euh, baax baax yi nga xam ne réseaux sociaux yi mën na koo dimbali ki koy jëfandikoo waaye nag bon bon yi nga xam ne tamit mën na koo lor ki koy jëfandikoo kon day mel ne réseaux sociaux yi ci jëmmam mën nañ ne ab jumtukaay la boo xam ne paaka ñaari boor la mën a am mën naa dagg ngir jariñ la waaye nag mën naa daggit ngir lor la kon ci loolu nag ngir bañ guddal rek dañ koy jox Sëriñ Muxtaar Sekk mu nuyoo bu ko defee incha allah ñu dugg ci waxtaan tey wi nga xam ne lu am solo la bu dëppook jamono la bu jamono yépp surtout ndaw ñi nga xam ne dëgmal nañ ko lool war a euh, bàyyi xel la bu baax xam ne réseaux kat mën naa baax ci nit ki mën naa baax ci jullit waaye nag mën na koo lor kon ñaari wàll yooyu nga xam ne am na ko nag dana baax bu ci nekk ñu xam kañ lay baax ci nit ki ak kañ la koy baral ba mën koo wattandiku ak yu mel noonu kon sëñ Muxtaar euh, ñu ngi am mbégte mu yaa dira dalal ci euh, jotaay bi nga xam ne mooy ballulukaayu murid yi muy almanbaxul murid yi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, bisimilah rahmaani rahim. wa bihi nastain wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadim sëriñ abdul ahad maa ngi lay nuyu di am mbégte ci bokk yow jotaay bu am solo bii GMT TV di ko ko faral di def ci ñaar fukki fan yu nekk ci weer wi ni ko waxee ci njëlbeen rek di tànn tomb boo xam ne dinañ yaakaar ni nit ñi danañ ca mën a jariñu ñu lay biranti ak ñoom kon loolu rek moo sababoon tey nu tànn tomb bu fas yéene ci rek uh, jéem a waxtaan incha allah. Uh, macha allah jërëjëf sëñ Maxtaar ci nuyoo bu am solo boobu yi nga xam ne indi nga ko ñu leen di fàttali nag ni ñu ngi ci émission man baaxul murid yi badlukaay murid yi di émission boo xam ne. Euh, chaque levin lay am. ci mm. GMT TV ak làmp Fall. ñu ci daral borom xam-xam di waxtaane tomb yoo xam ne yitteel na jamono yitteel na askan wi. Mm. yitteel na jullit yi rawatina murid yi. Mm. te jii nag ñu am mbégte mu yaari ci dalal sëñ Maxtaar Seck war cee waxtaan ak moom. ci réseaux yi nga xam ne kenn mënta xëy bis daanaka te duggoo ci wala yu mel noonu. ba ci taskari xibaar bii ñu nekk am na ci nga xam ne am na ay baax baax waaye am na ay yoo xam ne nag mën naa gàllankoor nit ki mu di ko wattandiku. Mhm. moo tax tey ñu indi yooyu. kon sëñ Maxtaar réseaux sociaux yi moom mooy lan. Mhm. ak tamit ndax yan ijaabiyaat wala yan positivité la am. Mhm. yan baax baax la am. jërëjëf euh, Cheikh Abdou Lahad euh, réseaux sociaux yi bu ko waxee euh, tey mel ni dafa am biir ndab lu mu nekk muy internet xam moom moo moo leen ëmb. internet nag buñ ko waxee dafa nekk benn système global boo xam ne àdduna bi yëpp dañ ko séq muy ndab li muy ay mbir yu wuute yoo xam des ko cay jàllale ci ay moyens yu wuute réseaux sociaux yi nag buñ ko waxee ba tey it day mel ni kon ab lëkkaloo mooy am mu dog am muy benn jumtukaay rek mënu ko def mais ay jumtukaay yu bari ñooy jëflante mu dog njumtukaay yooyu nag moom la doomu aadama yi di jëfandikoo ci jamono jii di jëflanteek moom jëflante mu doon loo xam ne dañ cay mën a jariñoo mën caa jariñe wala ñu mën caa jaarale ay loraange lore ca kon mu mel ni kon boobaa day ëmb ay baax-baax ëmbit ay loraange loolu mooy réseaux sociaux yi ak ndab li mu nekk nga xam ne moom la ñuy internet réseaux sociaux yi nag buñ ko waxee daanaka da ci am yu gën a fesante wala yun gën a miin ak yu gën a tasaaroo ak yu gën a siiw ak yuñ gën a jëfandikoo lu demee ni li wax Facebook lu demee ni li ñuy wax euh, YouTube nga xam ni Facebook moom euh, li ko tax a jóg rek mooy euh, ak jokkaloo maanaam nit ñi di mën a jokkoo di mën a séq ay ay mbir yoo xam ni information lay doon wala loo xam ni euh, yu ni man di joxante ci biir la bu dee YouTube nag moom daanaka dafa gën a jëm ci wàllu vidéo nga ni euh, ay vidéo lañ ci jàllale su ko defee yooyu it mën naa am loo xam ne da baax waaye mën naa am loo xam ne da cay da cay bon kon yooyu su fekkee dafa am ay baax-baax ak njariñ ci biir lu demee ni baax-baax yi buñ ko ci doon wax rek mooy danan danan gis ni jëflante àdduna bi nit ñi dañ cee mën a jariñoo bu dee ci wàllu li ñuy wax business muy wàllu jëflante ak muy commerce ak lu nu mel njumtukaay bu ci bu ci am solo la ndax yombalal na nit ñi tey ñi ci misaal rek koo xam ne da daan dagg bi weer wu dee di jëndi marchandise dem ñëw tax na léegi day toog fi mu toog jëfandikoo ko ñu won ko li mu bëgg ci ay image ah, su ko defee ko yéemee ba ca nam ko bëggee mu mën caa jëflante te déplacé wu loolu kon njëriñ la walla sax su fekkee même transfert la ci wàllu xaalis yi nga xam ne dañ ko daan jaarale ci ay banque wala ci ay poche wala ci di ko jaarale ci aéroport yi yooyu daanaka système bi tax na ba léegi gën naa yomba transféré léegi te réseaux sociaux yi ak wàllu internet bokk na ci li nga xam ne yombal na ko bokk na ci njëriñ yi nga xam ne ëmbal na ko nit ñi te ñu mën koo jëriñoo lool muy information yi maanaam maanaam lu jëm ci wàllum xibaar xew-xew yi liy xew ci àdduna bi ndax bu njëkk ay agence de ñoo fi nekkan yu demeen ay Reuters ak yu nga xam ne bu information amee bala muy tasaaroo ci àdduna bi ñëpp di ko xam dana dana jël ay minutes wala dana jël ay ay waxtu léegi nag jamono jii tax na mbir mu nekk ci à la minute mooy jamono ji mu xewee rek àdduna bépp dañ ci mën a yem loolu moo tax léegi ñu ni maanaam jëmmi lii di internet dafa jël adduna bi def ko muy benn xariya muy benn village bu ndaw village na bu buñ ko waxee daanaka mën naa départ ci benn kër ndax benn famille rek nu dajaloo woon ci kër nekk fa sax fa di fa dund di fa yendu di fa kii boobaa dëkkuwaay la léegi ñooña nag ni ñuy yëge ab xew-xew ci benn minute wala ci ci ci benn waxtu léegi àdduna bépp ñoo yem ci loolu information boobu loolu te loolu réseaux sociaux yi ak internet moo ko indi demee ni jokkoo ni muy amee ni mu gaawee ak ni mu yombee loolu njariñ la ndax ñun ay murid lan taalibe Sëriñ Tuubaa lañ sunu jokkoo ak sunu yeneen i mbokki taalibe ci àdduna bi ak fu mën di nekk ci luy ci ci luy liggéeyal Sëriñ Tuubaa buñ ko bëggee def ci benn minute àdduna bépp yëg ko fu murid nekk yëg loolu njariñ la kon ay njariñ loolu mu ci biir internet ci dañ koy mën a limaale ci ci li nga xam ni moom mooy njariñ te bu njëkkan soo musaana bëgg a jàllale dara mu jàll ci doomu adama yi ci bu fekkee ay réew yu nekk da ngay bind lettre xëy dem jóge ci dëkk jël horaire wala nga jël mbaruwaay dem lu sori mu doog a jóge ci dëkk booba dem ca capital ba def fa ab semaine doog faa jógewaat ñu teg ko ci avion mu dem mu doog a yegg foofu léegi nag sa téléphone ngay bés benn bouton rek ñëpp yam ci kon loolu njëriñ la mooy jokkaloog nit ñi ak jox leen information ñu dund ko à la minute ci mooy ñe Amérique ak ñe nekk France ak Allemagne ñëpp tey bu sëñ Muntaxa joxe woon benn ndigal ñoo ci ñoo ñoo koy mën a jotandoo à la minute loolu kon njëriñ la waaye li ñuy wax liberté d'expression muy maanaam xuriyatu ta'bir muy nit ki am liberté ci mën a wax ay xalaatam ndax euh, da ko yombal daal da ko yombal ndax su fekkente ni woon tey maanaam dañoo tënk ci ni nit ki bala moo wax dañ koy vérifier dañ koy nangam ci jamono yu yàgg nga xam dañuy enregistré cassette bi xool su ca lu ci neexul ñu jël cassette bi suul ko wala dara kenn du ko yëg kenn du xam léegi nag dangay delloo sa bunt tëj sa kër wax la ngay wax àdduna bépp yëg ko ak wax jël nu mu mën di nu mu mën di nu di mel waaw ñëpp koy yëgandoo waaye euh, ca bu njëkk nit aw nit daana fi nekk di woote ci lu baax am ñoo xam ne lu baax taxu leen a jóg ñu bañ loolu siiw te ñu yor benn moyen boo xam ne ca la war a mën a jàlle ñu tas leen ca wala ñu jaf indi leen ca jafe-jafe ba loolu duñ ko mën a jàllale. deme ni woote yi nga xam ni eh, ñu baax ñi daanan ko woote ci lislaam wala sax ci yoonu murit ca bu njëkkoon loolu lépp da daan waaye ci buñ xoolee it jamono ji fi mu toll ci wàllu xam-xam. ab téere boo ko mosaan a soxla da ngay dox lu yàgg dox lu bari doog a gisub téere ci mag ñi sax daan egg ci dañ daan laxas dem ab dëkk bu ñu yeggee benn téere mooy ne ci dëkk genn kilifa mu ko am kenn ñëw sotti am fay weer sotti téere ba jàng ko fa a jàll feneen. Mm-hmm. léegi nag fi nga toog ci sa machine wala ci sa téléphone ngay mën a wàcc benn bis nga wàcc junniy téere yoo xam ne tey bu doon jamono jooju da ngay dox ay kilomètres wala da dox lu yàgg kon loolu yomb gi ko internet bi yomba réseaux sociaux yooyu yomb yomb ko yombalal kon loolu ci njëriñ la bokk loolu ci ci ci ci njëriñ la bokk waaye ni nga xam ni mi ngi koy mbokk gi maanaam jokk mbokk gi ni ci yombee bu dee famille la ñoo xam ne dañoo tasaaroo bokkuñu réew yu ñu nekk wala sax bokkuñu dëkk bu ñu nekk waaye mën nañoo def benn link wala benn benn benn réseau wala kii comme tey yi nga xam ni xew na application yi nga xam ne xew na nga xam ne benn famille boo xam ne dañ ci regroupé wu ñoom ñëpp ñu mën cay bokk di ca waxtaan di ciy dox seenu mbokk loolu kon njëriñ la ci ci te bu njëkkan loolu amut nit daana dem ay mbokkam ñu xam fu mu nekk léegi foofu waay man di nekk say mbokk su ngeen bëggee benn séq benn waxtaan yéen a koy séqandoo yéen koy mën a waxandoo li ñuy def nii tey ci biir jumaa yi Tuubaa nga xam ni murit yi dañ fiy digloo ndigal di fi di fi di fi di fi di fi jëlee ndigal ñu leen fi digale ñuy def lépp tey suñ waxtaanee jumaa yi Touba niñ ci yemee man cee jotandoo man cee jëfee man cee def seen digal loolu kon njëriñ la ndax lu demee nii tey ci biir jumaa yi Touba ñu toog fii di tànn ay thèmes yoo xam ne dafa yitteel murid yi ñu di leen ko wax ñu ci jëriñu loolu it ba tey tey ci réseaux sociaux yi lañ koy jaalale kon loolu it njëriñ kon sëñ lat njariñ yi buñ ko dee lim dana bari lool waaw. Euh, macha allah sëñ Maxtaar am na solo lool te. leeral nga ci lu bëree bëree bëri ci njariñ yi mu am. yaa ko mm-hmm. tàmbalee ci ne réseaux sociaux yi kat. Mm-hmm. ci internet la jóge muy ndab loo xam ne ku nekk ak la nga ciy tibb la. Mm-hmm. ndab nag bu feesee. da nga ciy tibbee. Eh, rawatina nag nga di ci tibbee lu baax. li nga ciy wax ci baax na nga xam ne réseaux sociaux yi am na ko nag mën nañ koo tënk rek ci ay ci ay ay fànn yoo xam ne. mën nañ ne am na. lu baax ci wàll diine. ndax day. yombal nit ki muy gëstu xam-xam waaye nag di amal ay waxtaan yu mel nii ñëpp lu ci jariñu mm-hmm. bokk na ci rek lu mel ni ñu bari créé nañ ay groupe yu whatsapp wala dara mm-hmm. ngir di ci jàngale diine ak yu mel noonu am nañu ci firi yi am nañu ci nàngam kon mën nañoo jàpp ne baax na ci wàllu diine muy ijaabiyat boo xamante ni diine la am baax na tamit ci wàllum koom nga indi ko muy ixtisaadiya yi nga xam ne vente en ligne la da ngay toog sa kër wala sa dara poste benn affiche nit ñi mën koo gis mën ciy jënd te doo jóge fa nga nekk loolu tamit lu bari na boutique yoo xam ne sax léegi ci vente en ligne la am amut benn fu fixe waaye da ngay publier dara am ku ko jël daat koy jënd nga livré ko ko loolu tamit lu am solo la loo xam ne ñu baree baree bari wax nañ ne bokk na ci li doxal koom ci àdduna loolu tamit réseaux sociaux yi euh, baax na ci wàllu googu baax na ci wàllum social muy iciment yi fi nga daan mënta dem lépp ngir ak sori waaye réseaux sociaux yi mën na la faa jokkale groupe whatsapp yi nga xam ne njabootu nangam waa kër nangam waa kër nangam bis seen nga dégganteeg seen waa kër te doonte doo leen gis waaye ni ki noonu ki nga xam ne daa daa tukki àndut ak ak njabootam fi ñu nekk bis seet mën naa déggante wala sax di gisante ak njabootam jaarale ci réseaux sociaux yooyu noonu ci application yooyu nga wax niki noonu tamit bu dee ci wàllu euh, euh, saxaafiyat am na ko muy wàllum culture mën ngaa toog fii di xam ña ñee ci àdduna bi ci nekk beneen ba luñ baax la ci wàllu culture yow it nga leen di jox li nga baax la ci wàllum culture ak yu noonu waaye baax na tamit rawatina ci wàllum ijaabiyaat boo xam te ni bu xel mi yàlla muy ci wàllum scientifique dangay toog am ku bind livre nga mën koo gis mën koo liir mën koo dégg wala bi set nit di jariñu ci réseaux sociaux yi ci jaarale ko ci euh, kii minute yu ndaw rek nga jàng loo xamante ni boo doon nekkutoon réseaux sociaux yi doo ko jàng. waaye nag am na foo waxee mooy ci liberté d'expression. bari na ci réew yoo xam ne euh, soppi ko am na fi mu toll te réseaux sociaux yi lañ ko jaarale. Euh, ni ki mel ni état bi day day tëj yenn télé privé yi wala yenn télé publique yi. ci réseaux sociaux yi nga xam ne kenn mënu koo tëj ndax ndab la lu yaatu ci la ñuy jaar ba def loo xamante ne danañ soppi nit ñi nit ñi mën a am seen liberté kon loolu itam ci ijaabi yéen kon bari na loo ci tudd bari na loo ci junj day mel ni mënut ñàkk daal ci dund gi hmm. waaye loo gis lu am njariñ tamit hmm. xanaa war naa am ay lor de dëgg la <laughs> léegi réseaux sociaux yi moom euh, loraange yi hmm, loraange bari na lool mel na ne sax moom lañ gën a moom lañ gën a moo ci gën a yaatu moo ci wala moo ci gën a fes moo ci gën a fes ndax euh, li tax bu dee ñun suñu réew yi xam na xam nga njàng mi ñu ci bari njàng mi du kawe te dafay internet wala technologie daanaka waaw ak déet rek la mooy fooy dugg fu ne waaw wala déet léegi nag su xamewul fu ngay dugg ci waaw wala déet di nga ni déet fenn foo bekk fokk fekk foofa la nga ne waaw te foofa du baax mooy ngay dugg fenn mu lay proposer waaw la wala déet wii wala non nga daan ni wii te waru ko fa woon a def su ko defee mooy waral mu lay indil ay image yoo xam ne du image yooyu taamu nga naan lii lu doon te dafa am ay yenn site yoo xam ne ci internet bi tey soo ko xësee cliquer benn yoon rek bu dee email la saa bu dañu la koy yónnee bu dee sa machine la saaboo boo machine bi day ñëw te fekk na booba message bi mu lay bind bi ngay dugg ci foofu da nga ko liirut kon foofu it Euh, amu jàng da ciy baax ba tax na rawatina suñ mbokk soxna yi wala xale yi ñoom sax ñooy gën nekk ay victime ci loolu euh, ba tey bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne danañ ko duñ ci ressources si mooy maanaam sànq waxtu gi ci nekk ndax di nga gis koo xam ne nam ko war a na jariñoo ci am njàng ndax ni ñaa ngi ci jàng ba am doctorat léegi kon loolu njariñ la ba tey waaye di nga ci gis koo xam ne moom da cay yàq waxtoom moom mm-hmm. au lieu que moom mu exploité ko ci wàllu wàllum euh, économie am ca am ci euh, wala ci wàllu jokk mbokk mm-hmm. walla ci wàllum njàng xam-xam mais waxtoom da koy sànq ci lenn mooy dugg ca am yu la yoo xam ni maanaam application bi wala site bi moo la koy moo ko moo la koy imposé proposé la ko nga accepté ko mm-hmm. nga fanaan ca wala nga yendu ca daal di yàq sa waxtu te euh, loolu su ko defee rek dana da nga dem sax ba sa gisin wala la la ci dugaloon da nga koy ñàkk te ñun sëñ Tuubaa daf ñuy dénk wax ñu ni fala tujaalis ghayra man bihi tuzaad diinan wa aqlan abadan tanal muraad te kon maanaam bi nga yore sa téléphone bi wala bi nga yore sa ordinateur bi nekk ci dugg ci yenn sit wala dugg ci ay ay chaîne euh, web TV wala lu mën di doon su boobaa yow machine nga yor mais cib jitaay nga nekk donte jàppewu ko nit nag waaye teewut yaa ngi cib jitaay te comme nee na boo toogee na nga fexe di yokk ci sa diine wala nga yokk ci ci xel te mooy na nga nekk ci jaamu yàlla di def lu lay jariñ wala nga nekk ci lu lay yokk ci xam-xam kon su fekkee sànq nga ko ci lenn rek kon loola perte nga ko euh, bokk na am ñoo xam ni léeg ñu nekk ci ay victime mooy naxaatekat yi ci nekk nga xam ne dañ lay proposé lenn yànjal la ko am nuñ la ko bindale ci wàllu marketing nga ne accepté nangam sangam nangam ñu dem ba ci biir muy nax yi kese loolu it mi ngi ci kon loolu ay jafe-jafe la yoo xam ne nit ñi ñu ngi ko ci ñu ngi ko ciy dund lu demee ni euh, wàllum euh, vie sociale bi maanaam dund dund nit ñi ak seeni kilifa xam nga ca bu njëkkan mag ñi su guddi masaana jot sax daanan toog di léebal seen sët ci misaal lu demee nii léeb boo xam ne dafa dañuy jël gaynde walla ñu jël lëg ndax gaynde bu buñ ko masaana jël rek ci nettali yooyu mooy ak njàmbaar lañ cay jàngale su dee lëg ak yeewute lañ cay jàngale loolu maam yi daan def sax xale yi daanan dem ba am ci luñ mën a liggéey ndax ca la ñuy jële ca lañ leen daan jàngaleek njàmbaar ak muñ ak ay lewet ay jikko yu baax yooyu ci yooyu la ko mag ñi daan jaarale mais loolu soo xoolee actuellement sëñ Abdou Lahad daanaka absenté na léegi amatut daanaka koo ci deman tey ci ñi am ay quarante ans cinquante ans koo ci ni defal ma benn léeb bu am njariñ boo xam ni social la dafay yare daanaka du la mën a wax dara parce que lan mooy loolu absenté na léegi lii moo ko wuutu te lii biñ ci duggee sax daanaka mënuñu la ci lañ koy seetaan sax boo lañ ci doon wax lan moo ci jëriñe dañu la ko mën a wax mm-hmm. kon foofa waxtu ma ngi fay sànku mm-hmm. waaye it naxe yi dugg ci biir encore mi ngi mi ngi mi ngi dem foofu mm-hmm. kon ci wàllum euh, nekkinu nit ñi ak seeni i ak seen i ak seen i njaboot nga gis koo xam ni heure dafa waroon a jot mu toog ak doomam di ko jàngal walla di ko wax ci lu koy jariñ waaye day téyeb téléphone am léeg bu dee soxna sax mën naa toog ci téléphone am teg ak diw ba mu te du yëg ni tàkk na ndax ma ngi ca téléphone ba ma ngay jokkoo bu dul jeex ci ci ay ay ay ay ay réseau wala ma ngay ma ngay ma ngay dugg ci application wala yeneen yooyu kon loolu mi ngi koy am effet bu muy def boo xam ne loraange la ci biir famille yi ci biir famille yi wala ñoo xam ne waroon nañoo mën a toog def réunion familiale ci seen biir mais kenn ku ne day yor téléphone am toog fee te duñ bokk lu ñuy wax duñ bokk lu ñuy kii amaana kii ka muy waxal ma nga états koy wax ci lu yàq jikko kee ma nga ca leneen ma nga koy wax ci ay caaxaan kii ak leneen ak leneen te buñ toogoon ak kilifa gu mag kër gi mën na leen wax lu leen di jët mm, wala sax nit toog ak di wax ak yow doo ko faale ngir ba lay laal te doo yëg sax ni laal na la mm-hmm. fekk mm-hmm. bi ci des mooy euh, wuute gi ñu wuute ak suñu aada mm-hmm. tam ne ci biir ndax tubaab yi bi ak euh, réseaux sociaux yi application yi ak yëpp ñoom bu ñu ko liggéey seeni aada la dugal ci biir mm-hmm. Mm-hmm. la ñuy dugal ci biir mm-hmm. mooy tax ngay gis léegi daanaka dem nañ sax ba yooyu dafa yaatu mooy nga gis soo xam ne day dugg ci réseaux sociaux yi di saaga di wax lu bon ah? di tuumaal ay nit boole caag sax dañ koy sàkko alal léegi maanaam la wax du doon lu wér wala barab boo xam ne bu ñu ormaan la lool nga dem fa rek wax fa wala nga fotow fa wala nangam tasaare ko ci àdduna bi ni da ngay wut aw tur wala li ñuy wax buzz wala yoo xeet yooyu fekk na booba yow après ngay jégglu wala ngay nangam fekk na yow la nga ca bëggoon mooy siiw ga wala leneen kon loolu it ay jafe-jafe la yoo xam ne ñu ngi koy jànkoonteel ci biir ci loo xam ne dafay dafay ñàkk dëppoo ak suñu ak suñuy àdduna ndax ñun daanaka li cëpp ñun dañ cee liggéey dañoo liggéey lu ci nekk mm-hmm. lu ne ci biir dañ ko liggéey ay tubaab ñoo koy liggéey rek dañ ko sànni ñuy consommer comme ñun ay consommateur lañ nag mhm. te xamuñu ni ñuy consommer kon bu boobaa sunu loru ci biir day gën a yomb sunu jariñ loolu moo moo waral lu lu bari nekk ci mhm. euh, li nga xam ni it am na ci mooy mhm. euh, gis nañu ni euh, maanaam jigewante bi nit ñi ni ñu war a jigee léeg-léeg ñu gënee soree ñu gën gën nee soree maanaam topp réseaux sociaux yi ba far ñi nga war a gën a jigéel nga far leen a sori mhm. loolu it danañ danañ ko danañ ko gis ci biir mooy nga nekk Touba war a jaxasoog waa Touba ci li ñuy dund mhm. mais topp nga lee ñene unis wala France wala leneen ci réseaux sociaux yi mhm. topp ñooñu ba bàyyi ñi nga jige loolu it danañ ko dañ koy gis di ko dund ci biir mooy li nga xam ni léegi daal dafay mel ni frontière ci wàllu yëg-yëg ak yooyu amatul léegi mooy da ngay tëj sam nekk image di ñëw ndax bu bu njëkk sax yenn ñenn mag ñi dañ daan télé euh, tere ay télé seen kër. Mhm. ba ba léegi nii ci biir Touba man xam naa ay kër yoo xam ni télé du fa takk mhm. waaye nag sagam njaboot gaa ngi am ay téléphones yu dëppoo ak jamono kon mel na ne daanaka télé moom say bon mu dugg. ndax bii sax moo gën a danger xam nga seeblaat. Mhm. Euh, xam naa bokk na ca li nga xam ni mooy euh, wàllum njàng mi gone yi. gone yi toll ci jàng suñ xoolee euh, yow jàngkat nga jàngalekat nga. waaye boo xoolee yow ba ngay ba nga ci toll te yi xewagut na nga farloo woon ci téere farloo ci kaye ak na nga mën a na concentré woo ci loolu gisatoo ko ci ñi ngay jàngal wala ñi ngay ñi ngay ñi ngay gis léegi parce que koo ci gis ma nga yor téléphone boo xam ne mooy gën a cher téléphone ka koy jàngal ah di ca dugal yoo xam ne dëpp wut ak njàng ma di ca yàq waxtoom loolu nag tax na xale yi niveau seen niveau di wàcc kon loolu it bokk na inconvénients yi nga xam ni réseaux sociaux yi mi ngi mi ngi koy def wala ñu ngi ko ci ñu ngi ko ciy dund te dañoo jàpp ni maanaam xale su yoree téléphone wala mu yor njumtukaay boobu moom dafa war a doon lu muy jëfandikoo ngir man cee jànge man cee xame man cee yokkoo waaye su ko defee benn objet boo xam ne fowukaay la ko def wala mu def ko leneen loo xam ne dafa koy yàqal jëriñatu ko euh, kilifa yi di ko ca seetaan loolu it dara gënu koo nekk euh, li nga xam ne moom mooy mooy jafe-jafe Cheikh Abdou Lahad euh, macha allah Cheikh Mokhtar am na solo lool te leer na naññi li nga ko gën a tënk rawatina mooy inconvénient bi ci ëpp solo te gën cee mooy sànq waxtu wi ci am ba tax na nit ki tëratul dara day beru rek di waxtaan ak ñeneen di jël seen jikko yu bon di waxtaan ak ñeneen amaana ñu koy nax di waxtaan ak ñeneen ñu koy def loolu bon loo xam ne bu génnee bis seen nga gis koo xam ne réseaux sociaux ko moo ko weer moo yàq àdduna waaye rawatina nag sànq waxtu woowu nga xam ne sëñ bi sax da koo da koo junj amal bitaalatu wata di yoon umur min kulli ma yaani fadaa uhu yadur hmm. mooy toog defoo dara bañ a liggéey ak sànq waxtu nee na jàngoro joo xam ne moo gën a mën a lore lu lool kon loolu ñu moytu ko bu baax xam ne daal réseaux sociaux yi di borom xam-xam bu waxoon rek waxtu mi ngi mel ne jaasi boo ko daggul ma benn nga dagg ko ci am njëriñ wala mu dagg la ci lu amul kon képp ku ne ci réseaux sociaux yi na xam ni mu koy jëfandikoo suñu maxtaar waxoon sànq bi muy ubbi ne ndab la loo xam ne mi ngi noonu euh, laa cay jëriñ nag yow yaa ko ciy def waaye rawatina nag li ma ci gën a dégge mooy ñu ne waa euh, waajaluñ ko ngir mu ngir mu jëfandikoo ressources yooyu. Mm-hmm. muy ñan ñi nga xam ne dañoo jàngut wala yu mel noonu. Mm-hmm. ndax kooku moo ci sànq temps am xamut lu ca baax ak lu ca bon. Mm-hmm. ba bu mu ko ubbee mën na ko gëndoon kon xëy na euh, beneen tom boo xam ne yaa ngi ko doon xaw a junj léegi muy. Euh, est-ce que rawatina murit yi. wala julit yi. sànq waxtu wi ñu ciy def waaye rawatina nag xuloo beeg saagante yeeg waxante yu est-ce que loolu dëppoo na ak murit dëgg-dëgg war naa am jotuk toog di tontonte ak a yàqante ba tariixa yi te sëñ bi waxoon wala taado man raaytum faahu yuxriju laa ilaaha illallah wax ne bul bul bul noonu ko koo xam ne gémmiñam yi génn waaye ahlu tasawuf mu naan leen wirdu yëpp baax yëpp ci yàlla lañ waaye léegi dañ gis nag ci phénomène ji est-ce que yow en tant que euh, boroom xam-xam ban message ngay wax ndaw yi murid yi ñu gën a xam nan lañuy jariñoo ci réseaux sociaux yooyu waaw sablaat loolu question bu am solo la boo xam ne dañ ci xalaat lu bëree bëri ndax euh, xam nga yenn saa yi sax ngay dégg benn polémique wala polémique ci réew mi ndax am nay jamono waxtaan yu ma ci doon waxtaan ndax man Euh, bi may nekk Égypte nekkoon rédacteur en chef bu euh, journal bi ñuy wax Sawtu Rabita nga xam ni euh, Rabita bi nekk foofu ñoo koy génne defoon naa ci benn article boo xam ni français arabe la ñu tasaare woon ko su fekkee juumuma ay années deux mille quatre deux cinq yaakaar naa booba sax réseaux sociaux yi tàmbaleegut comme comme nii ay Facebook ay YouTube yi boobu amagut sax yaakaar naa ndax xaj na YouTube deux mille cinq la côté mais Euh, dama ci booba sax booba satellite yi rek euh, booba la lañ commencé di euh, télé yi di di dugg ci satellite yi télé Sénégal di ci dog di dugg ak yooyu noonu ma def ci benn réflexion doon ci wax sama yëg-yëg rek ci maanaam day kon aada yi mi ngi toxoo ci suuf ci seeni suuf di dem ci yeneeni suuf mooy kenn ku ne li nga am kon mi ngi tas àdduna bépp di ko gis ndax dama daan gis li ñuy gën di siiwal boo nekkee xam nga boo nekkee bitim réew sam réew lu ñu cay wane bu fa bu benn étranger gisee rek dalay laaj yow sam réew la mu wane ay fecc ay sabar ay làmb ay nangam sangam mooy lu doy waar euh, ma bindoon ci waaye nag li nga laaj nii mooy euh, coow yi am ak waxante yu ñaaw defante ñaaw ay polémique ay yooyu noonu loolu dafa am loo xam ne moo koy suuxat ndax damay jàpp ni lenn li buñ ko bàyyee muy dem nii rek te jëluñu ci ay matuwaay day gën di ñaaw di gën di dem ndax euh, euh, kilifa diine wala kilifa gu man di doon gu jiite ak lu mu jiite rek dañ ko daan ormal waaye léegi su fekkente ni buñ ko waxee baat kenn du kenn kenn ña ci am taxawaay bu buñ war a taxawee duñ ko ca taxawee moo xam ña bokk foofu wala ñeneen ñu bàyyi noonu loolu yëf yi di gën di yokk gën gën di gën di ñaaw te loolu taxawaay da ca war a am sëñ ndax boo xoolee fan yi ci ginnaaw rek xam nga jékki-jékki jàmbur boo xam ni tudd la waxu la hmm, yor lu wéram soo ci bukk noppi waaye boo ca dee wax yaa ngi yaa ngi bëgg indi loo xam ni mën naa indi fitna te nag yoon bi salaa salaam wax na ni al fitnatu naaima laana allahu man ayqadaha kon loolu te man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw kon yu demee noonu kon waruñu koy seetaan di ko bàyyi muy demee noonu di di di di jàll di jàll nii comme nag réseaux sociaux yi moom ubbeeku na te daanaka téye ko yombut waaye nit ñi war nañoo mën a gën a dellu ci seen parce que nag mënu ni man ab jullit laa ba pare saa bu neexee génn wax lu ñaaw suñ la waxee nga ni maa ngi jégalu te nag jullit ci boppam nit ñi dañoo war a mucc ci làmmiñam loxoom ak ak ak ak lorom waaye bu fekkee nit ki ne julli la ba pare di wax lu ñaaw di def lu ñaaw kon ak julli tamit moom daanaka day xaw a doon doon lu yeme leneen li ci daal si Abdou Lahad mooy mbirit boo ci nekkee muy sa ngëm-ngëm am ay orma orma yooyu da koy sàmm euh, am na lu lu ma bëggoon a wax mooy euh, damay gis rek ci yoonu murit léeg-léeg maanaam benn web TV boo xam ne ci yoonu murit la nekk ba pare ñuy wax luy ŋàññi yoon wi nga koy jël di ko di ko di ko publier mm-hmm. loolu lu may ñaaw yéefar ba ñëw di wax ci lislaam aw ñaawte fa mu waru ko jàllale ci chaîne boo xam ne wala média boo xam ne média islam la mais yoonu murit it web TV yi nañ ko gën a organiser foofu ba ñi ni wax loolu ñu leen di recadrer parce que yow mu yor yor organe de presse ki ngay wow mu ciy wax war ngaa mën a doon koo xam ne bu cee wax day eh, wax wax joo xamante ni bii ni du ŋàññi kenn du xas kenn du indi ay polémique mais tey ñu ne benn web TV la Touba lañ koy askanale baat ba sax xëy na Touba tur ba sax xëy na Touba ma nga ci waaye mu seet koo xam ne dafay dafay daj ormay yoon wi mu jël ko di ko jàllale. loolu moom lu lu lu lu ñoom ñëpp war nañ cee mën a gën a bàyyi xel comme nag dañu ni liggéeyal Serigne di couvrir ay màggal ay gàmmu ay nàngam kon lépp luy ŋàññi yoon wi ak lu bokk ci yoon wi nañ koy daw a loolu moom lu ma lu ma lu ma lu ma doon bàyyi xel la. ñi nga xam nag ni bokkuñu ci yoonu murit dañ ci bokkut wala amuñu ci orma yenn yi waaye dañuy toog fee di wax seeni wax ñooñu moom état ak ñeneen ak ñeneen ñooy mën a jëflante ak ñoom parce que am loo xam ni dus bàyyi ba xew ñu doog ko lijjanti mais bala muy xew te am na signes yoo xam ne bu day xew buñ ci taxawut bis bu mbir xewee da si taxaw di ko te lépp loo xam ne nag bu amee état day taxaw di ko su ca gisee signe bi na ci gaaw taxaw jëli matuwaay loolu it lu lu lu lu war a kii parce am réew moo xam dafa am benn stabilité Eh, ñoo xam ne tey bu réew mi yëngoo dañuy sàkku seen ñaan sàkku seen baat ñooñu ku jóg di leen wax ay baat yoo xam ne fitna mën na caa jóge war a sa mën a am taxawaay vraiment voilà. Euh, macha allah xaw a mm-hmm. Mm-hmm. ci tomb boobu dinañ ci euh, gën a yaatal xam naa du ñàkk beneen yoon ñu gën a mm-hmm. ci wàllum nag yere ak jàngale tomb nii day baax rawatina baat yi nga ko ubbee ci tomb boobu muy mm-hmm. maanu ak it gën a jooyante ñi ñi nga xam ne mm-hmm. ñoo koy utilisé mm-hmm. bu dee ci état bi responsabilité mu jël ko waaye tamit ndawi murit yi ñoom nit ku nekk te sa responsabilité yow nga daal koy jël bokk na ci bi nga gën a wax sax mooy bu dee murit yi nañ maandu rawatina guddi gi yëpp yëpp sa yoon nekkul loo bañ ko la ko wax wala ko wax sa sëriñ bu ko wax borom ñuy naan bu leen saaga yàlla bu ko defee ñeneen ñi nga xam ne leneen la ñu mhm. ki noonu tamit tasaare ñaawteef bi nga xam ne bari na ci réseaux sociaux loolu suñu borom da koo da koo aaye mhm. te euh, rëbb ci li koy def mhm. alladina yuhibbuna ñi nga xam dañuy bëgg di tasaare ñaawteef ci diggante ji gëm yi ñooñu mbugal mu métti ñeen na leen àddina ak alaxira loolu bépp jullit war na cee bàyyi xel bu baax waaye rawatina njàngaleem Seexul yi muy euh, nga wormaal képp koo xamante ni kilifa la te nga nangu nte san sam wax na nga bàyyi lépp loo xam ne ci tiir lépp loo xam ne amul loo njëriñ hmm. loolu lépp boo ko boolee mooy euh, euh, li nga xam ne mën naa koo dégg ci tontu bu am solo boobu kon ndaw yi murid yi nañ gën a xam li sëñ bi ne nañ gën a xamit tamit ne sànq waxtu yi ressources amul solo ndab la lu yaatu ñun nañ kiy def wane ci njàngaleem sëñ bi jariñu ci ba pare te ba noppi tamit bu ci jariñe waaye ca bañ cee sànq suñu wax kon suñu maxtaar waxtaan bi am na solo lool. maanaam mm-hmm. jox la kàddu gi rek nga tëj. boo mm-hmm. ëllëgee incha allah. Mm-hmm. <laughs> Uh, jërëjëf Sablaat uh, am nañ mbégte lool ci bokk ak yow plateau bi di sant bu baax di rafetlu liggéey bi am fii ci GMT TV uh, mu ngi liggéey bu am solo ndax damay falal di wax ni maanaam saaxa bi penc mi ñi fiy defaree. nañ fexe ba ñiy yàq ñu leen gën a yaatu ci penc mi kon lu mel nii bu amee ci biir jumaa yi Touba ñuy tànn ay waxtaan yu mel ni di ci dimbali nit ñi eh, loolu day doon lu am solo ndax damay faral di wax ni nit ki léeg-léeg dafay dem ba réer boppam mais buñ ko gindee ci boppam rek bu ñëwaatee du réeraat te eh, lu muy liggéey bu am solo di di rafetlu lii bu baax a baax di ñaan mu wéy te sax waaye it di ñaan ñi nga xam ni yàlla denk na leen te mën a jàpp ci liggéey yu mel ni ñu jàpp ci. ndax segam ñuy def ay ñaawteef di wane lu kenn xamul la ñuy sponsoriser di leen jox ay millions ki milliards ñuy gën a euh, tasaare ñuy def ci yoonu yàlla nga xam ne lislaam yi neen la ñooñu waris na leen mën a jàppale waaw waris na ci njumtukaay ci matuwaay ci taxaw ci formation encore parce que liggéey mel ni dafa laaj formation ba nga xamee ni maanaam ñi koy def danañ ko mën a def ci ak dal def ko ci xam-xam mu mën a yaatu mën a tasaaroo kon ñu ngi leen di sant di leen bu baax a baax di sant waa muxaddamatul xidma ak mbokk yëpp di la sant ci liggéey bi am na solo loolu salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. jërëjëf suñu Muxtaar daayira bi ñu ngi lay sant bu baax di gërëm bu baax. Hmm. di leen tey bi tamit. di di suñu Abdou Xaadir ñu ngi sant bu baax saa suñu la soxlaa rek ñu ñëw teewaay ci ci yu nii. ñu hmm. ngi xam-xam bu am solo. ñu hmm. ñaan suñu borom mu yokk la gudd fan ak ba liggéey bi nga xam ne. ñoom taxaat ñun ñu ngi la koy. Eh, eh, dénk suñu borom defal la ci mm-hmm. kàttan ak mën-mën bu baax a baax kon tey ji mbokk yi nga xam ne yéen ñu baaxoo seetaan ci GOB TV te mu am ci TNT bi ak ñu ñuy ànd ak Lamp Fall tamit ci waxtaan wu mel nii di Al-Manbahoul Mouridi di émission bu mag bu émission bu am solo bi nga xam ne mooy ballukaayu murid muy émission boo xam ne dañ ciy eh, daral ay borom xam-xam yu mag ngir ñu ciy waxtaan ay tomb yu wuutee rawatina tomb yoo xam ne laal na diine laal na mbooleem dundinu askan wi rek ak ci njàngaleem Cheikhul Khadim dañ koy amal weer bu jot tey jii ñu amoon mbégte mu yaadi daal suñu maxtaar tomb bi bu nekkoon réseaux sociaux yi nga xam ne moom la ñëpp di dund yan baax-baax la mën am ak yan jafe-jafe la mën a am yoo xam ne mën nañ koo wattandiku suñu maxtaar wax ci ne solo mooy nit ki xam nan la ci lan la baax mu jël ko te la te bon mu daal ko koy bàyyi teg ko nële kon mbokk ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax ci ànd bi ngeen baaxoo ànd ak Guéwél Paye TV yéen jox dig dañuy incha allah te weer yéen ñëw ci la bañ ci émission bi nga xam ne Almane Ba mu ngi nii wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wal tudxil al musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadi al wafi. wal tudxil al musliha fi yadi wa fi. داري وثبتنه بالهادي الوفي